كيف ترقى رقي asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi yéen mbokk yi seetaan info TV mboolem fu jullit nekk di ko seetaan ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaar ci guddi leelatul xadr di ànd ak yéen ci suñu leelatul xadr ci info 15 mbokk yi nga xam ni yéenay seetaan info ci internet yépp ñu ngi ñëw di ànd ak yéen di nuyu waa info 15 di nuyu seex te di ko siyaar itam mu mel ni guddi laylatul xadar guddi la goo xam ni ku ne xam na ni li ci suñu borom subhaanahu wa taala diggee dafa rëy yàlla def ci diggee lu rëy rëy jullit rëyaay ba kenn xamul nu mu tollu yonent bi sallallahu alayhi wa wax ñu ne nañ ko jeex ci fukki fan yu mujj ci weeru koor ci guddi yu tool yi mu mel ni tey àllarba ci guddi ni dafa bokk ci guddi yi nga xam ni ci Sénégal ñu bari dinañ ci natt guddi leelu xadar muy ñaar fukki guddi ak juróom ñaar ci weeru koor mu mel ni bu fekkee ni ci arab yi la ñoom def nañ ko biig ndax ñoom biig ci ñoom ñaar fukki guddi ak juróom ñaar la tombe ci ñoom mu mel ni seex kon guddi leetu xadar bu ñu xoolee guddi gu rëy gu màgg ndax góor gu tedd googu nitu yàlla boobu sofiyanke boobu aarif billah boobu nga xam ne dafa jël dundam yépp cërale ko diine séddee ko lislaam nitu yàlla bu rëy boobu nga xam ne dundam yépp yàlla la ko jox suñu boroom subhaanahu wa nitu yàlla kooku nga xam ne mooy samoonul xaas yi nga xam ne dafa jël dundam jox ko sunu boroom ndeysaan nga xam ne bëccëg bi dafay woor boole kook di xeex ak noonu yàlla yi ak di lijjanti dépense bu mu yóbbu këram te njaboot gi mu yoroon kat moom juru ci kenn moom ay njabooti jàmbur lañu yoroon na soxna waaye yàlla mayu ko woon bant waaye soxna sax famille mi yëpp moo leen boole woon yor waaye soxna si sax musut ko déggal ci noon yi rekk la doon nekk moo tax xeex rek la doon yendoo ndax soxna si moo doon tëralal noon yi plan bi muy bi ñuy jaar pour mën a rey jëkkëram mu dund ci loolu junni weer ci coono yu metti yooyu bu ngi guddee fanaane naafi la fanaane tudd boroomam fanaane jàng alquran su bëccëgee mu nekk ci liggéey ak di xeex ak noon te du ko yàqal jaamu yàllaam yu rëy yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam netti tuyaaba ji ko yàlla dig ak rëy ga mu rëy ak bari ga saaba yépp seen xol yi tooy kenn ku ne naan ak a neexoon ñu am tuyaaba ju tol noonu ndeysaan yonent bi ñeewenti bi mu leen ñeewante yàlla yëg nag ni ñeewante rasulullahi sallallahu alayhi wa bu am rek ñaan la mu wàcceel ko dig ko benn guddi boo xam ni xayrun min alfi moo gën junniy weer kon moo gën lañu wax waxuñu ni moom moom ñoo yem daf ko gën kon guddi boobu mu nekk guddi boo xam ni jar na ñaan ci loo xam moo tax fàttalubul mustaayil ñaan leen fad'u almustahil watlubul mustahil ñaan leen li ngeen yaakaar ni jomb na leen ndax yàlla dara jombul ci kanamam dara jombul ci moom lépp lu ko jaam bi ñaan te mu nekk dëgg ci moom te mu gën ci moom suñu borom subhanahu wa taala mën na ko defal yàlla na ko ko defal mu nekk guddi goo xam ni guddi gu yéeme la comme ci shaahir yonent bi nee na taxarraw laylatul qadr fi layalil axir min shahri ramadan waa fi layalil witr yonent bi nee na jeex ko ci fukki guddi yu mujj waaye ci guddi yu tool yi kon bokk na ci guddi gu xel yépp yaakaar xel yépp daje ca muy guddik ñaar fukki ak juróom benn di guddi ñaar fukki ak juróom ñaar ci weeru koor su ko defee kon mbokk yi lu nekk wax nañ ko ci ne nañu ci laal xuraan wàcc ne nañu guddi la goo xam ne ci laal xuraan wàcc waaw ci jaahir ak ci baatin yëpp ci laal xuraan wàcc waaye ban alxuraan la yàlla wàccee ci guddi leelatul xadar moo tax am na ñu wax ni guddi leelatul xadar guddi gu yéeme la ndax guddi la goo xam ne ci la yàllay dogal lépp lu nar a xew ci dund doomu aadama bi ci la ko yàllay def nit ki li mu war a dund am ko ci kaw suuf yàlla dogal na ko ci guddi leetu xadr nit ki li mu war a am ci kaw yàlla dogal na ko li nga fi war a lekk yàlla dogal na ko li nga fi war a téye yàlla dogal na ko li nga war a jaar sa loxo yàlla dogal na ko kon lépp lu doomu aadama biy def seex ma yëgal la ni yàlla dogal na ko ci guddi leelatul xadar moo tax kon guddi leelatul xadar xayru min alfi waaye ci ñaar fukki guddi ak juróom-ñaar ci weeru koor ci la alxuraan wàcc ci la alxuraan wàcc moo tax kon ñu ni guddi googu daal taamu nañu ko ci guddi leetul xadar ba mag ñu bëri dañ ko ci dàkk di ko ci def amaa lu mën a xew guddi googu guddi ijaab la muy guddi ñaar fukk ak juróom-ñaar ci guddi weeru koor nga xam ne bu wësatee ci la weer wi war xëy guddi googu boo xam ne ijaab la ñëpp ci yaakaar ijaab guddi ijaab la ndax guddi gunge weer la guddi ijaab la su ne nag dañu xool ci côté aqiqa seex ci xool ci côté maxarifa guddi laylatul xadar wax nañ dëgg ci la yàlla wàcce alxuraan waaye ban alxuraan ndax alxuraanu kayit bi ñuy jàngale déedéet ci la yàlla wàccee alxuraan bii nga xam ni mooy nit mooy doomu aadama parce que nit mooy alxuraan seex alxuraan ñaar la këyit bi plan la mais plan bi la kan lay waxal kan lay jàngale kan lay wone kan lay wone ay jikkoom kan lay wone kan mooy kan mooy alxuraan nit lay wone mooy kan parce que nit rek lay waxal yàlla li mu wax ci alxuraan yépp wax ko kenn doomu aadama rek la waxal yàlla nag nee na innaa ñun yàlla anzalnaahu ñoo wàcc alxuraan jii di jëmmu nit fii laylatul ci guddi gi ñu namma dogal doom sosu ci diggante jëkkër ak jabar diggante góor ak jigéen guddi gi ñu namma doom sosu ci yàlla nee na guddi googu mooy guddi gi ma dogal alxuraan war ci wàcc wàcce ci ci ci ci jëmm ku góor gi ñëw ci raxamu yaay ji mu nekk guddi ci xale bi ba keroog muy judd diggante bi bu doon fukki weer bu doon ñaar fukki weer benn guddi la ñu ni kon guddi gaangoog mooy guddi gi nekk xale bi nekk ci biiru yaayam mu ni nag wama adraka ma ndax xam nga sax lan mooy guddi dogal gi mel ni yonent bi da koy déet guddi gi ma nam ma dogal doom am xayrun moo gën min alfi zahrin ci junniy weer يخمني تنزل الملائكة وروه فيها مو جن جني وير نخ جن قدي قوغو ملائكة إذن يواتي تبير يايجي تنزل الملائكة فيها waru fiha bi isni rabbihim ànd ak seen ndigalu borom min kulli amrin ci lépp loo xam ni xale bi war na ko dund ci kaw suuf lu fi war a def lu fi war a am lan la fi war a nekk kan la war a doon ak ñan ñoo ko war a jàppale min kulli am lépp lu mu mënti doon nee na malaaka yi dañ ko àndaale moo tax comme dafa war a dund te war a tekki ji war a nekk nag kon salaamun yaay ji yàlla dana ko jàmmal jàmmal yaayam xataa ma layl fajar ba xajar bu fajar saxaar mooy lan mooy ba mu judd ndax fajar suxar bi mooy keroog bi yaay ji yégee mat xale bi wëlbatiku ci biiru yaayam ñi fob ruu roof ci naqatal bi ruu gi xëcc ko mu génn parce que yaay ji bi muy bi muy bi mu ëmbee doom ji ruu nekkul ci biiram maanaam xale bi yàlla ruu bi nga xamante ni mooy tax nit di dund di noyyi di lekk di naan di saf saw boobu nekkul woon ci moom xam nga yéen xam ñoo nekkoon ci moom waaye boobu moom nekkoon kon ruub boobu bis bi muy judd ci lay ñëw ci moom parce que ruub boobu mooy xëcc ci doom bu duggee rek yaay ji day daal di yëg mat ci tàng tàng bi li xew moom mooy yaay ji dootul ne ci jàmm doom ji juddu rek mbaa la neen am moo tax ruub moom bu duggee rek benn day dugg rek génnaat mbaa mu dugg génnaat ci nee mais moom fokk ñu opéré yaay wala yaay ji dee mbaa doom ji dee. mënoo ci dara lu moom bu duggee rek génn am soo tax suur bi mu duggee rek boobu nag ataama dayl fajir ci la ci la mat wi di commencé nag léegi nag kon fajar si xar na léegi nag bro keroog bi mu duggee feek bro bi génnul ci nit ki bu dee ci bu dee ci bésu aqiqa léegi benn bëccëg la nit ki bu fi dundoon téeméeri atit benn bëccëg rek la ci ruu ndax ruu moom keroog bi mu duggee jant fenk na ci waa ji muy jantu aqiqa samsul xaqiqa keroog la fekk ci jëmmu nit kii boo ko xamee ak bu ko xamul keroog bi ruugi génnee la samsul xaqiqa so ci moom moo tax wolof xaqiqa lay wax donte xamu ko wolof dafay def bu nit ki nekkee dund lu yàgg bu génnee àdduna ñu ne ak gudd fon ak gudd fon yaa ne ak gudd fon maanaam moom benn bés la fi am ndax benn guddi la am ci biiru yaayam am benn bëccëg ci àdduna muy benn bés àdduna bi mu fi wàccee ba léegi moom benn bés la fi am benn guddi la fi am benn bëccëg la fi am wolof ne ak gudd fon moo tax yàlla di ñuy ci alxuraan ni inna yawman inda rabbika ka alfin mi ma taxu doon seex gis nga yàlla bi muy wax ni bi muy wax ni benn bés ci sa borom léeg-léeg dina tolloog junni junni xam nga xam nga euh, dina dina toll ak junniy junniy bés junniy bés ci suñu borom subhaanahu wa taala nde xoolal xoolal maam ma suñu maam yont yàlla nooxin ndeysaan junniy at junniy at junniy at yu manqué juróom fukk ndeysaan moom la fi def waaye gis nga inna yawman inda rabbika ka alfi mimma taxutoon gis nga loolu yëpp junne at yooyu yëpp benn bés la ci suñu borom subhaanahu moo tax alquran ne la inna yawman inda rabbika ka alfi mimma taxutoon gis nga comme junni at yi ngay lim mën na nekk benn bés ci suñu borom ndax téeméeri at yi fi waa dund faatu yëpp ñu naan ak gudd fan moom benn bés la ci suñu borom subhaanahu wa taala kon bés ci suñu borom yàlla rek xam ñaata at la. ci ñun suñu at yi ñaata weer la ci suñu weer yi ñaata la sunu borom subhaanahu wa taala moo ko xam moo tax yàlla fa benn guddi rekk gis nga séddee ko juróom-ñett fukki at yu topp yow seex kon won la ni kon laytul qadar bu dee ci aqiqa wax naa la lan la waaye bu dee ci shaahir wax naa la lan la ndax keroog bi soxna si doom ji juddu léegi bésam tàmbali na kañ la bés bay jeex mooy keroog bu yàlla génnee ruux ci moom ñi war ko defar war ko sàng war ko jébbal boroomam kon keroog keroog la la bëccëg boobu jeex ci moom kon sax pour woon la ni kon laytul xadar lu bari ay njëriñ la laytul xadar guddi ñaan la nag bu dee guddi ñaan la ñu di ko dàkk ci guddi gu mel ni guddi gii ndax njariñ yu bari ci nekk boo ci mënee jàng alxuraan nga jàng ci alxuraan soo ci mënee tudd yàlla nga tudd ci yàlla soo ci mënee julli ci yenent bi nga julli ci yenent bi ne bëri soo ci mënee euh, tudd def tudd lu baax nettali ci histoire yenent yi histoire Seydina Muhammad histoire nit ñu baax ñi def ko ndax lépp ndax gis nga fooy tuddee nit ku baax yërmande yàlla dafay wàcc fooy tuddee ñu baax yërmande suñu borom subhanahu wa taala dafay wàcc kon Cheikh maa ngi nuyu waa Info 15 TV yëpp. di siyaar ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñun ci koor gi yépp itam di leen mastaw itam di leen gërëm fépp fu ci nekk ci àdduna bi di seetaan info 15 di ànd ak ñun ci ci ci ànd ak ñun ci koor gi ñu ngi lay ñaanal yàlla defal la tawfiix ci barke laylatul xadar yàlla dëppale la laak laylatul xadar te nangul itam loo ca def lu mu tuuti tuuti wala loo ca yéene walla loo ca joxe lu mu ndaw ndaw yàlla na la ko sunu borom subhanahu wa taala defal kon ñu ngi nuyu waa àdduna euh, bi yëpp di leen nuyu di nuyu itam euh, mën a télé télé xaw ma nañ koy waxati mooy auditeurs yi nga xam ne ñooy seetaan info 15 yëpp suñu mbokk yi koy seetaan yëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen gërëm di leen ñaanal itam. di leen wax ni incha allah bu koor gi weesoo itam dinañu ànd ak yéen ci programme yi comme niñ doon ànd ak yéen wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi lay nuyu seex te di la ziar di ñaan yàlla gën leen a yëkkati gën leen a avancé la wasalaamu aleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf كيف ترقى رقياك الأنبياء يا سماء